jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare TV wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax eh, di am kontante ak mbégte janowaat ak yéen comme niñ koy defee saa su ne ngeen gis nag kii nekk kilifa boo xamante ne jotoon na fee ñëw muy eh, sant yàlla moom nag eh, tur bi mu dàkkantalee boppam saa su jaam jàqee wala mu nekk ci bànneex wala mu nekk ci tiis saa su ne rek suñu xel mi day dem ci suñu borom subhaanahu wa taala mu gën ko santaat tey nag dafa amoon émission bu ñu jotoon jàll ñu waxtaan ci lu baree bari mu ñëwaat tey euh, ngir ñu gën a waxtaanaat sëñ bi maa lay nuyu nga nuyu mbokk internet yi su ko defee euh, ñu weel waxtaan alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina muhammad allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi maa ngi nuyu Sénégal di nuyu mondo entier ñi ci biir ak ñi ci biti képp ku ñuy seetaan ak képp képp kuy si suñu émission maa ngi lay nuyu di la ziar di wax asalaamualeykum wa rahmatullah bisimilah. sëñ bi temps gis nga actualité bi nga xamante ne xew na ci réew mi. Euh, lëmbe àdduna bi yëpp euh, muy diggante coow bi nga xamante ni dox na ci diggante Ousmane Sonko ak soxna soosu di Nansar Adji Sarr euh, nga gis coow loo xamante ni am na ci ba bërki démb kër Ousmane Sonko takk der yi ak militant wu Sonko yi laale nañ ba deret turu na fa ñu baree bare gaañu nañ ci am nañ ci ay blessé yu métti métti gis ngeen suñu waay takk der bi nga xamante ni moom it gaañu na ci ban gis-gis nga ci am ak lan moo waral coow loolu. waaw cooloo li ko waral lenn la rek euh, muy Macky si ñi ko wër xam nga euh, ay nit booy jëflanteeg ñoom ci li ngay jëflanteeg ñoom danga koy respecté bul ne bul leen xeeb bu leen tuutal bu leen doye dal li nga wax ak ñoom rek jëfe ko ba mu mat yaa ngi dégg tey ji nga dajale ay nit di leen liggéeyloo hmm? tey am na ñoo xamante seen wax wala ñu jëf rek musiba la si ñoom kere bi ñuy jugee fii lañ euh, defoon suñ émission wax dañ fi jógee rek ñaari fan rek si la cooli am xam lu waral lool parce que dafa am si waa kër Macky Sall ñoo xamante ni dañ ñu waroon a jox suñu xaalis joxuñu si la ñu mobiliser wu ñun ñi nga xamante ni ñoo daan liggéeyal président bi foofu noonu ci pale bi bokkul pale bi ci Ndakaaru xale boobu fii la nekkee parce que boo ko waxee dafa bëri ay waxkat. nekk. pale baa ngi fii tubaab jalaaw après tubaab jalaaw fa boobu nekk. comme président képp ku falu rek foofu ngay nekk foofu ngay noppaloo foofu ngay defee say affaire foofu ngay defaree say bagage foofu nag bi maanaam da ngay jëli say sëriñ jaw fu nekk lay nit di jóge ñii ay Indo ñii ay Sokoto ñi ay Mali ñi ay Niger fa la ñuy jógee bi maanaam foofu ñi fa nekkoon ñu ay làkkat laaj man rek maa leen maa rax te foofu du ne melokaan bi moo fay teew foofu beneen melokaan moo fay teew ñu leen di liggéeyal di leen liggéey ñoom ñu dem nag ba yëg seen bopp waroon ñu jox suñu alal joxuñu ko ñu nekk seen yëfi bopp ñu ne nag ñu ne ñu dem si demee nag ñu ne ñu jël Sonko en charge ñoo ko jël en di ko liggéeyal yaa ngi dégg biñ toogee nag wax bi ñu waxee rek si leen jógee créer problème yi yëpp. dinañ ñëw ci nga jël Sonko jël Sonko en charge di ko liggéeyal mais yow bi ngay liggéeyal président Macky Sall euh, tey kan moo la engagé woon kan moo la jëloon waxtaan ak yow ak ci yan kàddu ngeen waxtaanoon ba tey ngeen commencé di leen liggéeyal. waaw moom si ñu ko wër la. moom xam na ko moom xam na ko moom du ma wax turam. duma ko wax mais moom mu ngi ñuy seetaan. bi parce que moom bu ñuy jël du man kese. maag sama ñeneen moroom ñoo xamante ni ñi ñu ngi jugee ba Indo ñii jugee ba Sokoto ñii jugee ba Mali ñii Togo ñii Niger. ñu ñëpp moo ñu indi ku si nekk mu ne lii lii lañ bëgg ci président lii lii lii ñu ne ko waaw baax na mu dig ñu ku si nekk wax ñu lim ñuy wax ñii terrain ñii oto tegal ñu si xaalis bu bari yaa ngi dégg ñun moment yooyu ñun suñu liggéey si wàllu woowu dañ na laan jëm ci liggéey bi nga ñuy jox ñu liggéey bu ñu ba pare loo ñuy jox nga jox ñu ko. boobu lan boobu ñu ngi ko doon liggéeyal lu jëm ci wàllu président bi moom moo yor loolu. wàllu mystique boobu falu na. mais comme boobu ñu ngi war a jëm si deuxième mandat bii mu toog nii yaa ngi dégg biñ biñ koy liggéeyal si loolu ba pare nag mu war a programme waat troisième mandat nag. ñoom nag ñu dem ba wóolu seen bopp yaakaar ne ñii duñ dara gëmuñ dara léegi nag ñu bàyyi ñu foofu yaa ngi dégg léegi man ak sama moromu sëriñ yooyu ñoom tamit ñoom ñu dem daal ba gis seen bopp ñoom ñu jugee fi dem ku ci nekk ñibbi sa dëkk. yaa ngi dégg man tamit si laa leen woo dañ bokk sa ñun ñoom dañ dem ba boole foofu benn groupe groupe ñu bokk groupe ma woo leen leen ñu ne léegi ma ne leen dañuy taxawal benn président. te xam naa ne su ma waxee rek waa ji moom bu ñu gisee rek dina tiit te dina jéem a def benn scandale si laa defee woon sama émission bi passé wax dama wax rek teguma si ñaari fan rek cooli am mais loolu dara dara dara si Sonko du dara si Sonko na jàpp na incha allah si kàttanu yàlla 2024 mooy nekk président de la république lii nag bi maanaam day arrière moom Sonko defar yaramam. day arrière defal yaramam continuer yaa ngi dégg incha allah nu muy defaree yaramam ci waaw day moom moom. yaramam wala. déedéet ñoom. ñoom ku ci bëgg a falu xam xam nga fi ngay jaar xam nga si ñen ngay jëm xam nga si yoon bi ngay aw ba jot si ñi nga bëgg a jot waaw moom bu arrière ba ñëw incha allah ci kàttanu yàlla dinañ ko defar yaramam dinañ ko gën defar garanti te si kàttanu yàlla mooy nekk président. sëñ bi est-ce bëgg woo Sonko mu ñëw ci yow euh, comme léegi politiciens yi dañ bu njëkk lañ daan xamee transhumé jóge fii dem fee léegi sëriñ si dañuy def yooyu dañuy jóge ci mag Macky dem ci Sonko. waaw gis na man. Sonko li tax man ma jël ko. woow ma ko nag ngir mu ñëw ma liggéeyal ko force wuma ko déedéet mais dafa nekk ndaw te man it aussi ndaw laa dëkk ci réew mi. xam loo xamante ni lu baax la ci sama askan tey ji ma xam ne lii nii euh, bu ñëwee day baax si askan wi tey day defar réew mi moo tax ma jug si di si xar sama tànki tëbéy di si wasu sama àq di ci dem di ko liggéeyal te xaaru ma ko ci te woow ma ko ci itam bëri na si tey ji ñoo xamante ni euh, si waa këram lañ ñu ngi ñëw maa ngi jëflanteeg ñoom ñu may wax lu mel noonu mais teewul ma su ma see wax kenn si ñoom na la indil ma Sonko yaa ngi dégg mais euh, dafa nekk ndaw ndawul social amal askan wi njariñ loolu moo tax ma ne kii mën naa ko jël di ko jàppale te xaaruma si moom dara séntu ma si moom tamit lenn waaw séntu ma si moom dara woowu ma ko tamit ngir mu ñëw si man bokkuma yeneen gars yi nga xam dañuy toog ci média yi naan président lii président la wala diw lii déedéet déedéet yaa ngi dégg man mbirum sëriñ la yaa ngi dégg mbirum sëriñ la ni may ñaanalee Sonko nii keneen tamit bu ñëwoon rek dama lay ñaanal yaa ngi dégg yaa xam nag euh, lu luy yàlla def waaw yow moom yaa xam luy yàlla def mais man bon hmm? képp koo xamante ni ñëw nga ci kàttanu yàlla rek man moom maa ngi fi pour ñëw mais pour le moment moom maa ngi liggéeyal ngir Sonko parce que njariñal askan wi la waaw nañ ci bàyyi xel bu baax njëriñal askan wi la waaw. mais kon yéen mere mere bi nga xamante ne mere ngeen ko euh, Macky moo waral kon problème bi am mere mere boobu moo tax ngeen dem ci Sonko mais kon Sonko est-ce que kon loolu bu doon loolu la euh, muraay kiiraanga bi nga xamante ne defal nañ ko ensemble kon duñ ko dindi kon Sonko duñ ko convoqué bay xalaat ni dina dugg kaso wala du dugg kaso. déggoo xam boo tiitee. boo tiitee. wala nga gis dara muy ñëw yow sa bopp yow doo xam fi nga war a taxawee moo dal waa Kër Macky fi mu toll nii jamono bi ñu nii dañoo tiit xamuñu fi ñu taxaw parce que dañ xam ne ñoom buñ leen gañee rek ay daan mën na leen fekk. te man ne bëri na ay jafe tamit yoo xamante ni mën na leen see fekk si. loolu moo waral lii yëpp tey ji coow yi ngay gis nii yëpp du dara. waaw coow yi du dara si sonk da koy gën a defaral mais day tax moom mu arrière defar boppam moom Ousmane Sonko waaw. yow fi mu toll nii li nga gis ci Ousmane Sonko mooy dina dem eh, dinañ ko àtte dina dem prison wala dañ koy mujjee dina leer wala cool yi fan lay mujj moo soxna soos. xam nga gis nga lu lu lu lu lu lu loo xamante ni bi maanaam la jarut a nekk di laaj lu leer la Ousmane Sonko kenn ko tëj. Mm. Ousmane Sonko ci kàttanu yàlla kenn du ko tëj. buñ ko tëj même buñ ko tëjee dinañ ko génnewaat si ay secondes. du ko tëj ak même buñ ko tëjee dinañ ko génnewaat ñaari wax la yu ute de. duñ ko tëj. du seen giri ñaar bi du ko féete ginnaaw. mukk maa la wax lii fii kenn du ko tëj moom Ousmane Sonko kenn du ko tëj. acte bi fi muy mujj dina leer ci moom wala du leer ci moom. leer ci moom ndañ. te Sénégal bi deful déggoo li ma la wax lii yëpp dañoo tiit waa Kër ma ki dañoo tiit moo war a cooy yëpp yaa ngi dégg tiit rek a leen jàpp moo tax mais Ousmane Sonko du si dara yaa ngi dégg am na nit ñoo xam ne boo seqee ñoom dara boo ko respecté wul boo ko respecté wul hmm, li ciy fekk yow xamoo ko. te ñoom dañ xam ne dañ dem ba commencé trouver na nag ñoom dañ def erreur te ñoom liñ bàyyee ñoom xam nañ ne luñ bàyyi du duñ duñ ay como waaw nekko ñu comme gars yi nga xam ne dañuy wóor si presse bi di wax lu la neex waaw. Euh, loolu am na solo trop euh, tey nag ñu fas yéene duggaat ci beneen ponk boo xamante ni bëgg naa ñu gën ci xuus ndax bii paase dañ ko brosser rek. muy wàllub làmb tey mbër mi nga xamante ni jàpp nga ni bëgg na dugg ci làmb avant muy dugg ci làmb euh, mën nga ko samp boo koy samp ci yan sart nga koy teg ak nan nga koy samp sampee ak samp bi ñaata lay doon ci wàllub koom-koom lu lay fay ba ngeen mën a jëflante. waaw comme mbër mi bëgg dugg ci làmb bëgguñu ñu samp ko samp samp mbër ay façon la. waaw ay façon la ngay am ay komba yaa ngi dégg di jël ay mbapat yaa ngi dégg wala ñu samp la nga jël pili de sept yoo xamante ni da koy jël dañ la koy dégg ngay jël rek waaw te samp yiñ koy sampe ay nag la samp mbër nag la bu dee kuy door a dugg ci làmb bëy bay sikat yi lañ lay sampe bu dee kuy dooru dugg ci làmb mais bu dee comme mbër ni ku yàgg nekk ci làmb kooku nag lañ koy sampale waaw te buñ la samp ko sampale sept yoo xam bu fekkee ki nga xam dafa bëgg moom sept yëpp mu di ko jël ñu di ko dégg kooku dañ koy samp sept ans yëpp ci kàttanu yàlla day jël ay làmb mais buñ ko sampee euh, dina am combat yoo xam ne tojal lay doon at mu nekk dinañ ko si daan benn yoon. waaw at mu nekk dañ ko si daan benn yoon ba sept ans yi oh, li ci des yëpp da koy jël pour mbëri ba pari bu fekkee nag euh, ci arène bi la bu dee si arène samp moom façon la tamit moom it tey nga bëgg am combat dañ lay samp. yaa ngi dégg bu ñu la si sampee moom kooku seeku ñoo yow ay daanook daan dañ lay samp ngay am ay combat rek nañ lay daan chaque jour mais dañ lay samp da ngay am ay combat waaw saison bi moom mën nga si am quatre combat ba cinq. yaa ngi dégg bu ñu la si sampee di nga am quatre wala cinq yaa xam dañ lay daan wala daanuñ la yaa ngi dégg bu fekkee ne da nga bëgg ñu samp la nga nga ngay daan ngay daan laa la wax de kooku moom it dañ lay samp. buñ la sampee cinq combat la cinq combat lañ lay assuré ci bi man laa la wax de cinq laa lay assuré cinq yooyu benn bi dañ la koy daan kaadi yaa koy daan waaw man moom loolu laay sampee waaw. Euh, làmb ji actuellement ni nga ko gisee yan mbër nga jàpp ni ñii moom samp nañ leen te caaxaan sempiwu leen. waaw làmb ji ku ci mel ni Modou Lo dañ Modou Lo dañ ko samp te caaxaan sempiwu ko Modou Lo dañ ko samp caaxaan sempiwu ko Balla Gaye dañ koo samp mais samp boobu moom mën naa dañ bu Balla Gaye mën naa dañ yomb na jafewul sax lan moo tax nga mën na deñ mënul deñ Balla Gaye mën na deñ kon sëñ bi mbaadu yow da nga da nga am ñaanal déedéet wallaay sax man raar ay mbëri mbapat laay ëpp lu may sampal parce que ñoom ñoom man village laay ëpp lu may nekk dafa sampalee ay mbër ñu ma fekk. yaa ngi dégg ñoom mbëree bëruma si lu may jëflante mais dama xam mbëru samp te dafa bëri foofu ma fay fekk ñoo xam ne ay kilifa lañ ay sëriñ lañ nekk fii si réew mi ñu leen di samp sant lool foofu la ñuy ñëw man ma samp ma samp leen. Balla Gaye ak Modou Eumeu Sène buru samp la dañ ko samp si nag bu ñuul amaseen si nag bu ñuul Modou Lo nag bu soko kii bu sokola yow gis wala dañ laa liggéeyloo wala da ngaa toog rek euh, gis ko ci say bët. Euh, xam nga bi maanaam man mi dama nekk nit koo xamante ni daanaka du ne lépp rek laay faral di wax. mais bëri na tey ji ñu may fekk fële ca sama village ba ay kilifa yoo xam nañ leen sant liggéey fii ñu ñëw foo fekk ma dama léegi léegi dama jël defaral leen jox leen ñu ñëw yaa ngi dégg moo tax fii lu ma la fi wax rek jàpp ko waaw lu ma liggéey la man lu ma liggéey rek xam naa ko te mën naa ne lii nii nii nii laa liggéey xam nga saison wu làmb kañ lay ubbi kañ lay commencé waat làmb ji demaat ci seen activité comme ni mu meloon. làmb ji. ji kooku mënuguma see dugg parce que dama nekk ci mbir moo xamante ni moo xaw ëpp farata làmb kum jamono ci waaw moo moom du ma nekk di si. bi waaw non même bu bi sax dama nekk si si askan wi. waaw parce que sama askan dañ nekk ci guddi goo xamante ni guddi gu bët set jotagul la. waaw dañoo sonn parce que askan wi léegi daam lu leen sonal da leen jàpp ci xel ak ci xol jàpp leen ci yaram muy seytaane yi guddi yi guddi yi dañ leen sonal sonal lool lool sax waaw dañ leen sonal trop trop trop ñoom nitu guddi yi ñoo sonal sama askan da ngay da dem ci famille gis na kii war naa réussir war naa mën a am alal mais dañ koy dog dama ay cëram di ko sànni ay feebar di ko dugg di manque deretam yàqal ko tey dañuy gis ku nekk fii ba Europe loolu da koy topp. mais ñi nekk Europe ñu ngi coow saa su ne naan bari na ci sëriñu Sénégal yi ñoo xamante ni dañ leen di yónnee xaalis te buñ leen yónnee duñ leen jot. mais am na ci kenn koo xamante ni moom vraiment dama koy wax saa su ne muy Serigne Mor nga xamante ni ñaankat la ma nga fëlee ca kër euh, fi nga xamante ne mooy Malika ñu bari bari bari dañ may envoyé message di ko sant di ko gërëm ci jikko yi nga xamante ni mu ngi koy liggéey ak nit en tant que Serigne mais à part moom koo ci wax rek dañ naan la Serigne sii kat euh, jëflante naa moom su ma ko wooyee du ma wuyu lekk na sama xaalis duma ci jot du benn du ñaar du ñett may jot message yu mel waaw sëriñ si benn dafa bëri ay sëriñ yoo xamante ne dañ leen sampo xamuñu fu ñuy taxaw yaa ngi dégg ñoom lii dañ ko def métier def ko wuutukaay xaalis di ci lor nit ñi tey ji kii nekk Europe ne la ñaanal ma ngir ma am kayit xam nga ki leen ñaanal ma ma am kayit kook yorul mais danga koy bëgg di ko dicter ay un million nangam wala ay un million sama émission bi passé nii dama fi jógee rek na ñi ma oo xaw ma nu ma nu mu toll sax dama di seen njaax ak seen soxla di wax wallaay dama tiit dama tiit si lool ma ne loolu noonu mënta nekk te fii nii amul benn ñaan boo xamante ni yegg na un million amul. amul benn ñaan boo xamante ne yegg na million amul sëriñ bu ko man mënta wax ma ne li nga wax amul si réseaux sociaux bi ak ku mu mën a doon fii si Sénégal. ñaan. bu bëree ba bëri ba bëri six cent mille cinq cent mille te xamu pour lan la hmm? pour nag lu mën da ñàkk ba ñàkk nag yaa ngi dégg foofu la ñaan war a yam mais ñaan àggul un million xanaa nit ki nga liggéeyal ko la ko liggéeyal xolam sedd si mu yëkkati dara nga defal la ko yaa ngi dégg kooku d'accord na mais ngay jëflante ni di ko laaj ay un million lii du utukaay xaalis lii du lu ñu business lii pour lan la danga nga war a dimbale nit ñi. ma liggéeyal la soo paree fay ma sa xaalis loolu tamit dégg naa ko ci Serigne Mor moom boo ñëwee di ko ñaan loolu danaa la demal boo gisul bul fay boo gisee fayal est-ce que pare ngeen pour képp ku ñëw ci yéen am soxla wala nga ne ko demal dinaa la ñaanal boo gisee ñëwal fay boo gisul bul bëri na bëri na ñu ma koy wax ma la ñu fi nekkul de ñi nekk Sénégal fii bëri na si tey ji nit day ñëw si man sax dis ma eh, soxlaa ma xool ko ak état moom fi mu toll. billaahi dama koy jël jagal ko ba mu jag faj ko ba mu tane ma ne ko demal moom mooy dellusiwaat yéenam àddina ak lii si biiram te bu dee man c'est mbirum àdduna daanaka daf ma soxalul loolu moo tax mais nit ñi fii nii bëri na ñu may jëflanteel tey si tey damay jëflante nit ba pare mu ñëwaat dima defal teraanga mais man mbirum àddina moo doonu loo xamante ni lu ma soxal la parce que bëri na si tey ñoo xamante ni ñu ngi toog ci presse bi yaa ngi dégg bi maanaam ñoom nekkuñ nit nekkuñ nit parce que nit boo boo jëlee àddina jiital ko nga jël sa bopp réel sa bopp doo nit kii mën a wax ne moom nit la dëgg-dëgg xam nga mooy kan kii jàppee ah, ne àddina du dara jàppee boppam ne moom du dara li lépp lu mën a ñëw ci moom ak lépp lu teew rek na jàpp na du dara li ko kàttanal moom suñ borom la du lum kàttanal boppam du lum mënal boppam luñ ko man loola tey ji tey ji bëri na si fii ay sëriñ ñoo xamante ni am na fit am nañ sañ-sañ boo xam ne wax te tey ji ñoom ki leen sab amul fitu sax wax ŋàppi gémmiñam di wax lool wallahi te dañ leen samp bëri na te bu ñuy wax yow da ngay tiit kii samp ma ko moo ma samp wallahi dafa bari dafa bëri si ci si nii ngay gis nañu bàyyi li ñuy def ñu xam ne lii nii du wutukaay xaalis lii lu ñu war a dimbalee nit ñi la waaw lu ñu war a dimbalee nit ñi la parce que jamono jamono moo tool foo xam ne dañu war a dimbale nit ñi nit ñi sonn nañ sonn nañ sonn nañ ba su sonn yem te ku leen dimbale rek walaay dang leen gisul mais dañ laaj dimbal askan wi dañ laaj dimbal muy si kër yi muy si bureau yi ak foo mën a dem place yu liggéeyukaay yi lépp sëriñ si tas nañ kër fa kër yi da dem si kër sax ñaar ñoo xamante ne ñoo bokk ndey baay sax du juboo loolu ko indi sëriñ saraka ji dalaa iñaane loolu amul amul tas nañ kër yi jaxase nañ nit ñi te tënk si la si utum xaalis dañ bàyyi loolu loolu baaxut jamono ji lii sonal nit ñi lenn rek mooy nitu guddi yi nitu guddi mooy dem si kër xool ne kii ku war a réussir la si kër gi da koy dog moom moom nit nitu guddi ñoom noonu la ñuy def yaa ngi dégg si kër gi dañuy xool kër guñ dem dañuy xam ne kii nii moom la yàlla gën a wërsëg nitu wërsëg la nitu leer la buñ ñëwee nag dañ lay dog di la roof ay feebar ñu lay roof ay feebar sa yaram di di ay kay jékki di gis fii ay métit boo mës a yëg yaram say oom say tànk parfois ñu dangay ngay sa nit ku naan ki dafa am jabet cancer wala dara ah wallahi man borom sant yàlla képp koo xamante ni génneeti nañ ko ci presse bi hmm? yaram yaramam ëfu wala yaramam mel ne ne le wallahi nañ ma ko indil hmm. wala koo xamante ni xelam dafa commencé dem ni hmm. nañ ma ko indil ci kàttanu yàlla ak koo xamante ni daña jinee ko dugg ak koo xam ne daña jinee ko dugg billaahi laa la waata su ñëwee ci man wóor na yàlla cooj lay def maa la wax lii. kon loolu may nga ma ko su ma amee malaat boo xamante ni dafa am problème mu xel wala malaat boo xamante ni dañu jàpp ni jinne da koo dugg wala ngelaw ak yu mel noonu ma indil la ko nga faj ko ci gratuite. ma faj ko ci gratuite ci kàttanu yàlla man borom sant yàlla waaw parce que man sama wér-gu-yaramu askan rek moo ma ñor loolu moo tax suñu borom bàyyi ma fi hmm. mais du wutum xaalis lañ ma fi bàyyi bu doon wutum xaalis maanaa ne jot naa sama yoon bu yàgg waaw parce que fi ma jot a jaar ak ju ma jot a jëflanteel yëpp ak liñ ma jot a xéwalal yëpp bu la mbiru àdduna moo ma jot dëgg walaay du ma toog sax fii di wax. bu baax a baax xam naa li ma lekk ci waxtu euh, bari na loolu mais ma lay jaajëfal lan nga bëggoon wax loo xamante ne laajuma la ko te bëggoon nga ko cee wax. man daal li may wax daal. Hmm? mbir yi la rek. muy sëriñ si nañ delloo xel ne métier mii lii du métier lii dimbali doomi aadama la sëriñ si ñi nga xam ne ay sëriñ daara lañ ñu xam ne ñoom ay sëriñ daara lañ ñu dem jàng ji daara ñu dem jàngale ji yaa ngi dégg ñi nga xamante ni suñ borom nag moo leen ko nattoo ñu xam ne lii suñ borom moo leen ko nattoo mais dañ ci war a dimbali nit ñi te ñu bañ cee wut xaalis yaa ngi dégg askan wi nag ñoom ñëw bàyyi seen xel. ne lii xew ci kër yi lii xew ci bureau yi si palaas yi liggéeyukaay yi si marché yi lépp lii la rek nitu guddi yi la rek yaa ngi dégg da ngay dégg jékki jékki dégg di benn mara sax toog fi sama maam rab la wala mu jékki di bàkkoo ne man sama maam lii la parce que yow bu déggee nit nga vraiment mu fekkee nit nga dëgg xaqiqatan yow war ngaa jomb ne man sama maam rab la sa maam yow da nga waroon a gëstu moom moom rab boobu nañ la def ba dëkk ci île boobu. loolu Idrissa Ndiaye ko moom sëtul ak daawar. ba tey mën na nekk mais sama yow da war a gëstu. doomu mooy toog naan sa euh, lëg daaw rey sama maam. sama maam ma nga fële di wax huile de serpent xaw ma euh, yu bare bare di ko wax saa su ne moom rek la ñuy dégg mu koy wax kon boo waxee wax ji dafa mel ni Idrissa Ndiaye ngay wax. ba tey mën na nekk de ba tey mën na nekk mais dama ne comme nit tey jii yow noo mën a taxawee yow ah en tant que nga yow nit nga nga man sama maam rab la yow boo toogee na sama maam rab na publiquement war ngaa mën a toog gëstu ko publiquement ba xam moom lan moo ko tëj ci île bi ay nit njaay ñooy jàpp jinne jinne tëj ko ci île te jinne moo gën a diis rab foofu nit di jàpp rab nii dem tëj ci île bi rab yi ngay gis si ili yi nii yëpp ak jinne yi ñoom nañ laaj ci fan fan lañ fan lañ jógee rab boo gis fii si wala jinne joo gis fii si il àll ba la dëkkoon li waral ñu indi leen tëj leen fii dañ naan taal jamono yu yàgg yàgg na yàggul bi mu mujjee am si jamono Ablaye Wade la ñuy taal tool yi yaa ngi dégg di lekk bu dee rab yi dañuy soppali ay yeew di lekk nag yi ak bëy rab loolu la bëgg loolu moo tax ñu jëlee ko foofu ci àll ba dem tëj ko fii ma ñaata yoon foo ma dëkk foo ma nekkoo fële tëngéej ñaata rab laa fa jàppee dem tëj ko ñaata rab ñoo xam ne dañ am ay rab nii ñoo xam ne dañ am ay rab nii laa la wax de ñu ñëw damay ji dindi rab bi dam tëjaat ko foo mu jóge ma dindi ko si nit ki ba mu set dem tëj ko si île nga xam xamante ne nit nag yow bu fekkee ne nit nga carrément di wax ak nit ñi war nga xam ne man mi ay nit laay waxal waxuma ay rab bu fekkee sa am rab la yow rab nga war wax ak nit ñi parce que dañ ne nit ña sa nit ña rabia sa rabia loolu la bu fekkee sa maam rab la yow rab nga dangay dem sa rabia nga faj rab lii nii ku ci nekk ak suñ borom fu lum la si cërale kii faj rab fajkatu rab la parce que moom maamam rab la kooku d'accord nañ ko yaa ngi dégg ki di ñaanalaate kooku suñ borom moo ko cërale ñaankat la. yaa ngi dégg moom xeet yi dafa bari dafa am ceddo ceddo ceddo mooy ñi nga xam ne ni ñoo ami rab ceddo mooy rab yi ñuy tuur ay deret soow ñoo ñooy ceddo nga dem ci jalañ fii Casamance Elengtine yaa ngi dégg Kafountine yooyu yëpp foofu am na ay jalañ fétis am na tamit côté yooyu lu ko euh, dalee Casamance Guinée ba Mali jàpp yow fétis yaa ngi dégg lasaraar tamit fii yaa ngi bi maanaam du xam-xam boo xamante ni da nga war a toog ni danga siy ñaan laate loolu yëpp dafa daj dafa nekk loo xam lu suñ borom tënk la si kenn nit pour kooku noonu war a doxal liggéeyu suñ borom mais lasaraal doonu xam-xam boo xamante ni da nga war a toog di si ñaanal ay nit xam-xam boobu pour sëriñ daara pour sa ndongo yi buñ demee ba nekk si njàqare wala nga gis ne ñii kat am na lu leen di ñëwal naa leen ci dimbale. loolu daal bi maanaam secret la du loo xamante ni dañ dañ ci war a toog di ci ut xaalis moo bëri tey si jamono ji te ñun dañ war a nekk ay nit ñoo xamante ni war nañoo war jomb ñu ne naan yaa mën a wax lu si ginnaaw ak dëgg. Mm-hmm. war nañ koo jomb parce que nitu daara danga nga war a nekk nit ku ñu war a jox cër. nit ku ñu war a mën a ormaal jërëjëf. jërëjëf am na solo ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci ñëw bi nga xamante ne ñëwaat nga ko fii ci wasaare di la jaajëfal bu baax a baax. waaw ah, dañuy sant yàlla rek. dañu sant yàlla bu baax a baax a baax di wax alhamdulilahi rabil alamin di gërëm nag euh, waa diaspora bi ak ñi nga xamante ni ñu ngi suivre suñu émission di leen sant yéen it di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm yàlla yeggale leen ba kawe fu sori yàlla defal leen jàmm ju bëri jërë ngeen jëf wasalaam. jërëjëf sant yàlla.